alhamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala adh-dhalimin wa ashhadu an la ilaha illa allah waliyus salihin wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbokki jullit yi mbokki àdduna bi mbokki diaspora bi daarul birr wal irshad mooy delsiwaat ak yéen ci émission bi mu tuddee wajaa ramadan muy émission yoo xam ni day tàmbale incha allah su ko yàlla dogalee bis bu nekk ci koor gi dinañ ci jéema amal darsu waaye darsu yi gàtt lay doon yoo xamante ni pour yeewante ci sunu biir tey ñoo ngi ñëw ci istiqbaalu ramadan maanaam tatagal weeru koor walla teertu weeru koor mbokk yi ana nan lañuy teeroo weeru koor assahabatul kiram nan lañ ko doon teeroo xam nga kenn ci nit ñi tey su amoon xarit ab jege ñaale bu la jege sa àndandoo koo fonk koo respecté nga gëj koo gis fukki weer ak benn bis bu la woowee yëgal la ni maa ngi lay seet si ñëw sa kër walla dal ci yow weer loolu doo ko gëmee dangay kontaan ndax sa xaritu benn bakkan la boo xam ni yiwu kese la la bëgg a indil noonu nga koy waajalee ci lu koy bégal lu koy taaral lu koy kontaanloo noonu mbokk la waajalee gan gii di ñëw te muy weeru koor weeru koor mbokk yi moom mooy lan weeru koor weer la woo xam ne képp kuy jullit nga bëgg am teraangay àdduna ak àllaaxira dafa am noo ko war a teeroo ndax promotion la day ñëw ngir ubbil la ay buntu yiw bokk na ci weeru koor màggaayam huwa shahru alladi undila fihi alquran weeru koor mooy anniversaire u alquran ndax ci la borom bi wàcce alquran waaye jàppal ne du alquran rek injil ci la wàcc tawraat ci la wàcc zabuur ci la wàcc waaye suhufu ibrahim wa muusa ci la wàcc alquran wàcc ci boroom bi tënku ko ne shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayyinatin min alhuda walfurqaan boroom bi ne weeru koor day weer la woo xam ni ci lañu wàccee alquran waaye alquran mu nekk hudan linnaas nekk njub ñeel nit ñi waaye nekk lu leen di leeral seen yoon mbokk boo bëggee xam weeru koor na nga xam ni weer la woo xamante ni yàlla yónni na yonent bi sallallahu alayhi wa ci diggu weer woowu wala ci débi weer woowu kon dangay xam ni weeru koor weer wu am miisa la waaye weeru koor weer la woo xam ni yàlla da ko def mu nekk kafaara digganteem ak koor gay ñëw maanaam bu jullit bi tartagadawee weeru koor wooree ko nañu ko santaane ci lekk lu yiw naan lu yiw sol lu yiw dox lu yiw wax lu yiw jëf lu yiw su fekkee ne nit ki def na loolu su ko borom bi nangulee koor googu da koy jéggal bàkkaaru at mi fekk nekkul bàkkaar bu jéggi dayo kon loolu mbokk ku nekk ci ñun war naa xam ni weeru koor weeru promotion la moo tax ki yàlla yónni doon wax ni alsalawaatu alxams waljumuatu ila aljumua wa ramadaanu ila ramadan mu fak mukaffiratun ma baynahunna ida jtunibat alkabairu nee na julli juróom kaffaara la waaye weeru koor ba weeru koor dir fii la féeg nit kaa ngi moytu bàkkaar yu mag mbokk weeru koor bokk na ci ba tey ay ngëneelam ak la ca nekk mooy weer wi nga xam ne première guddeem yiwu kese la moo tax yiw boobu bokk na ci mooy première guddik weeru koor yàlla day ubbi bunti asamaan yi te moom mooy bunti ajjana waaye yàlla da ciy tëj ay bunti safara waaye borom bi da ciy jéng seytaane ak njabootam kon weeru promotion la boo xam ne bu ñëwee góorgóorlul ba bul bàkkaar ndax bàkkaar boo ci mënta def doo mën a tuumaal iblis bàkkaar boo ci defate rek yow jullit bi jàppal ni sa bakkan la ak tàmm lu bon kon weeru koor bu ñëwee boo seetloo Sénégal tey bu fekkee ñu ngi jub 4 avril da ngay gis ville bi yëpp dañu koy defar orne ko def ci lu ci nekk guirlande yeeg dara manquéwul ngir ñu xam ni fête de l'indépendance mi ngi ñëw waaye weeru koor mbokk yi ci dëkk jullit ñi ak ñi bëgg diine ñoom it noonu lañ koy waajalee ndax dañuy yëg ni ci la bunti àjjana yi di ubbeekoo allahu akbar yàlla nañu yàlla may ñu mën a dem àjjana waaye nee na weeru koor woowu dañ ciy tëj ay bunti safara maanaam weeru koor wi dañ ciy tëj ay bunti safara waaye weeru koor dañu ciy tënk seytaane monote ko ba du mën a def dara mbokk weeru koor weer la woo xam ni yàlla da koo def muy weeru faruk bàkkaar weer la woo xam ni képp ku ko woor te gëm yàlla rekk tax nekk jullit rekk tax jëfee ndigal rekk tax ne borom bi dana la jéggal say bàkkaar te loolu ki yàlla yónni moom moo ko wax ne man saama ramadaana imaanan waxtisaaba gufira lahu ma taqaddama min danbi kon képp ku weeru koor woor weeru koor te ngëm yàlla tax rek nee na yàlla jéggal la say bàkkaar mbokk yi weeru koor weer la woo xamante ni am na ca guddi goo xam ni mbokk yi guddi googee moo gën junniy weer mbokk guddi boobee képp ku ko taxaw jaamu ko yàlla yàlla nangul la yàlla dana la jéggal sa bàkkaar yi jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa ne wa man qaama laylata al qadr imaanan wa xufira lahu ma taqaddama min zanbi nee na képp ku taxaw qiyaamu layl naafila ci guddik laylatul qadr nga dëppoo guddi googu nee yàlla jéggal na la sa bàkkaar yay wéy mbokk yi bokk na ci weeru koor yiw wi ci nekk ba ñu war koo waajal weer la woo xam ni ku ci umra danga mel ni ku aj maanaam tuyaaba yi ngay am ci aj moom ngay am ci umra ci weeru koor mu mel ni umra bi nga umra ci weeru koor da ngaa ànd ak yonante bi sallallahu alayhi moo tax ñëw na ci xadiis limaam Buxaari mu ne umratun fi ramadan taadilu xaj muttafaqun alayh nee na umra ci weeru koor nee na dafay wottee ak aj kon mbokk yi loolu ci aw yiw ak tuyaaba kenn xamul nu mu toll mbokk yi weeru koor weer la woo xamante ne gan gu màggee nii su waree ñëw dañu ko wara a waajal soxna yi waajal ko ci góor góorlu ba seeni bori koor ñu fay ko gone yi waajal ko ci ku amewoon bor waaye waa kër gi waajal ko borom kër yi waajal ko ñu waajal ko ci jàkka yi ci jumaa yi ci jàng alquran ci dëgg déglu tafsir waaye jéem a xam yan atte moom moo nekk ci weeru koor mbokk yi weeru koor weer la woo xam ni nit ñi ni ñu koy gàttandoo dañ ciy wuute am na te ñoo xam ne bu koor ñëwee dañuy texe ba faw yal nañ ci yàlla boole waaye am na te xamante ne bu koor ñëwee dañuy texee di ba faw ndax am na ñoo xam ni màggaayuk weer wi gisuñu ko ndax gëmuñu koor bu dee tux mën nañ ko caa def bu dee lekk mën nañ ko caa def bu dee naan mën nañ ko caa def ñooñu nag moom mooy ñi yées ci xeet wi ndax weeru koor di weeru yërmande di weeru yiw yow nga nekk jullit nga ni apprenti oto nga wala nga ni chauffeuru camion nga fan nga mën a teg ni chauffeuru camion du woor weeru koor loolu kay texee di rek la wala fan nga mën a teg ni apprenti du woor weeru koor su dee liggéeykat bi liggéey lu diis nga dégg mu ne la man mënumaa boole móol maanaam móolkat yi bu ñu baal ma exemple ma jël man mënumaa móol di woor wala man mënuma nekk mason di woor wala mënuma nekk mécanicien di woor mbokk yooyu yépp ay caaxaan la seytaane daa mën sa bakkan góor góorgóorlul ba bul bokk ci ñi nga xamante ni danañu alkoo ci weeru koor waaye ñiy jaay lekk ci weeru koor it nanu xam ne weer wi weeru yiw la kenn terewul nga jaay ci lekk waaye nag dafay ànd ak sutura ba bañ a yóbbaale ndawen bi wala ki ja mu woor ba pare romb nga defar yoo xamante ne bëccëg bi am na ñu fay dugg di ko lekk loolu nag war nañ ko bàyyi xel kon jullit bu góor bu jigéen bu yor restaurant na sàmm ormay weeru koor wi màggaayu weeru koor wi mbokk na nga yëg ni weeru koor weeru jaamu yàlla la dafay war ci mu mukallaf bu nekk képp ku commencé gént walla commencé am règle bu dee jigéen ne yëg ni weer wi war na ko na woor ndax kenn mënu ko koo wàcceel ndax mu mukallaf la borom bi moom moo ko ko teg yàlla yàlla defal ñu jàmm defal leen ko incha allah ñu teeru ko ci yaru ak mbaax ak wér-gi-yaram ak nangoo topp borom bi taala wa suy jeex yàlla defal ñu ci ngërëm ak yërmande wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.